Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu di leen jaar den baal wax den baal wax ni tey nag eh, ñu ngi def eh, doxantu fii ci Ndar eh, certifié ku éleveurs tey maa ngi tàmbalee sama waa ji xam ne da woon naa moom ci foire res bi. foire res bi mu yoroon jurement bu doy waar. champion hmm, dëgg la maa leen ñu ngi lay fay Cissé. Hmm. di nuyu mbokk internet yëpp. di si hmm. ziar di leen jox aussi seen wàccuwaay. ñi nga xamante ni yéen def déplacement dérangement ñëw fii ba Ndar Géej. waaw ñëw suñu bergerie. fas yéene ñu seet si.

élevage dafa nekk loo xamante ne suñu passion la maanaam suñu bëgg-bëgg la nekkul ne sax peut-être si xar lañ commencé. Mhm. mais maanaam ci lépp li nga xamante ne mala la ay pétax. Euh, mhm. xar lu ne daal maanaam depuis boobu ba tey ñu ngi si élevage. waaw ñun nag avant tout élevage dafa nekk suñu passion dafa nekk mhm. suñu bëgg-bëgg. moo tax euh, bañ demee nag ba nga xamante ne carrément nag laadum moo nekk li nga xamante ne xar. xar xar sax lay wax jëmi xar jëmi xar xar dafa nekk loo xamante dañ ko bëgg lool lool mais mbir nag boo ci nekkee bëgg ko da nga jéem a xool li nga xamante ne moom moo ci ëpp solo ñu xool ne gis ne laadum nag moo ëpp solo ci wàllum xar ñu dugg si nag ànd si suñu ay xar suñu ay doomu nday ku ci mel ne champion Thiam mi nga xamante ne daf ñu dañuy ànd ak moom toujours mi ñuy motivé di waxtaan ak ñun ci élevage di ñu soññ di ñu ñaax mu nekk nit koo xamante ne tamit ku bëgg élevage la voilà macha allah Euh, noo ci duggee deux vingt et un bi nu mu demee noo ci duggee. Euh, pour ñun nag première xar bu ñu njëkk am benn euh, doomu Nations Unies. Mhm. day am suñu benn waay boo xamante ne moo ñu ko joxoon. Mhm. ci boobu lañ tàmbalee woon nag. depuis boobu ba tey nag ñu ci ciy xuus di wéyal. Mhm. di def ay amélioration di ci wéyal suñu wàllu daal. ok voilà. tey fan nga toll ci liggéey. instant bi fi ñu ci liggéey mën naa wax ne. Euh, am nañ ci avancement euh, bu baax macha allah hmm. parce que ñi ngi gis ni carrément fañ commencé woon bu nekkoon ci benn instant bi ñi ngi si ñett ñi ngi dox nak nak ñi ngi amélioré aussi suñu ay sujet ñi ngi amélioré sujet bu baax a baax dëgg yàlla ok voilà ok hmm. euh, doomu na seen jour boobu ñu joxoon góor boobu femelle la woon bo femelle la woon bo boobu yàlla defe na joxe naa ko instant bi mais maa ngi fekk ay doomam ba ay sëtam sax maa ngi fi yor nii nii nag

mu nekk am solo tey ba ñëw fële foire ba indi woon nga fa benn chaine mâle indi woon nga fa benn chaine moom mooy moom anam moom moom mi fi moom moom mi fi quoi moom mooy quinze pro max ah, xam yàlla dafa dogal suñu liggéey wàllu smartphone la jox ñu dugg dañuy euh, yëngu ci wàllu iPhone yi quoi dafa nekk aussi suñu bëgg-bëgg donc euh, quinze pro max nag bañ si jot tombel iPhone quinze génn Euh, ñu am inspiration boobu tuddee ko 15 pro max. ok moom moom mi ngi fi moom aussi dinañ la wax la carrément fi mu bokk ak li ko tëgg dëgg dëgg dëgg. ok voilà ok moom moo nga jot fa ba muy ah? moom laa recruté woon ba muy nekk jeune man suñu benn waay ñu naan Iyane Camara nekk fii ci Saint-Louis nekk waay ju baax. Ah. moom moo ko joxoon daal. ok moo ñu ko joxoon. ok mm. euh, en tant que mm. parce que trois ans yàggul. Mm-hmm. Euh, ba nga ci léegi. yoo gisee eh, eh, élevage ci ci ci yorin bi eh, hmm. yooyu est-ce que. yaa ngi dëgg moom ku si nekk xam ne xam na ne métti na. Hmm. na mais mbir moom bu fekkente ne yaa ngi si. Hmm. bëgg-bëgg jiital la ci. lépp lu ngi siy def rek suñu borom dala ciy dimbali. la vraiment en tant que jeune éleveur ñu ngi góorgóorluwaat bu baax. ci élevage ci xar yi sax laay wax. wax dëgg yàlla métti na mais ñoo ngi gérer daal. ñoo ngi gérer parce que ñoom

ay crème sur la crème la quoi. waa wax crème sur la crème. crème sur la crème moom ba mu ñëwee rek terme croisé doomu Nations Unies boobu. doomu Nations Unies boobu ñu ngi ko di yi ban maal sax am na benn jeune maal boo recruté woon si boobu lañ ko di contexte boobu sa maal la woon benn surtout Dakar waaw. moom ngeen ko moom lañ ko njëkk. ok léegi ngeen ko moom ngeen ko ah. eh, ci gis nga ne ah liggéey baa ngoog. 15 euh, pro max nga nii. Mm-hmm. mu nekk liggéey boo xam ni tey. Mm-hmm. macha allah mën na ay 15 pro ñu euh, ci ñaata mois. 15 pro max instant mi ci 15 mois. mois moom dafa bëgg chiffre 15 moom. waaw waaw waaw wax nga dëgg de ah. léegi moom moom nooy def moom fu mu toll da euh, moom moo war a. Euh, fi mu toll def liggéey bi yëpp wala dañ koy bàyyi mu def liggéey ñu xool. Mm-hmm. ñu xool carrément fa mu mënee. bu ko defee ñu jël loolu liggéey ci daal. voilà instant bi pour l'instant daal moom moo fi moo fi nekk mal bi nga xamante ne. mo fi liggé amna nak yenen mal yu fi jot jaar parce que famille sha allah hmm. donc dañuy xol famille bu nek ak la mengol ci croisement hmm. ñu ko ci quoi dolli ko ci voilà ok sha allah légui pour ñu def ci présentation yi hmm. présentation yi euh, xala ma bàyyi champion cham mu len wa assalamu alaykum wa akhlu bi ma ngi len di ziar di len bëggé di len jox seen wàccuwaay di jaajeufal wa sama gal TV sha allah ku leen xam-xam ni ñoom si càmm la ñuy dox. Uh-huh. te luy doxal élevage rek la ñuy def. macha allah euh, déplacement aussi yombul. Mm-hmm. waaw vraiment ñu ñëw déplacé wu ñëw fii à Saint-Louis. Mm-hmm. bëgg fésal liggéey. Mm-hmm. waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. di wax ni ñun fii moom. Euh, suñu kër la. lu fi baax ñun la lu fi bon aussi ñun la. ñu noonu eh, wax na ma ni ngeen liggéeyee. Mm-hmm. Eh, mu nekk eh, koo xam ne ko ku dégg ni mu waxee xam ne passionné la. Mm-hmm. te mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy ut. xam nga càmm lu ñu jeex la. day mm-hmm. jékki rek modd. ñu ñaan yàlla nag bis ñëw champion bu doy waar génne fi ah. léegi présentation bi nu muy demee. waaw di wax ni par rapport ak li nga wax noonu danga wax lu am solo. waaw da ni càmm lu ñuy jeex la. waaw mais fii comme li may wax rek. tey ñun suñu càmm. Euh, dafa nekk façon càmm goo xamante ni mhm. du dañu dañu duggee ci ci càmm gi ak ak doole quoi waaw waaw waaw euh, comme moom yàlla dafa dogal dama dama ñëw fekk mu bëgg waaw xam nga kii nga xamante ni euh, aspect business la jiital bu dugg see tag da nga koy dugal tey ci xar yoo xamante ni business am dafay gaaw waaw mais man bi ma xamee ni passionné la waaw ah. xam ne aussi jeune la dafay liggéey am na yeneen préoccupation yu dul càmm waaw ah. mooy aussi dafa yor njabootam dafa war a gérer leneen ak leneen waaw ma ni que ñii ak ñii la ñuy càmmee d' mooy que ni tey dañuy débuté. Ah. Euh, dugal ay sujets yoo xamante ni. Mm-hmm. sujet yu baax la yoom mm-hmm. pédégré mm-hmm. ñu jéem ci lijjanti suñu bopp mooy tey ndaanaan yu ñuy am waaw ah. euh, duñ ko jënd ji dañ koy juddul ok waaw ñu démarré tey soo gisee tey ma téye brevi bi waaw euh, kii tey man maa ko waxoon mu jënd ji ko ok kii taawu diaspora moo ko jur ok dañu jël ku nekk xam na expert expert Euh, yaayam seex la dañu jël seexu euh, aminta mhm. tekka si diaspora mu jur benn maal bu ñuy wax graine d'or mhm. jël graine d'or tekka si benn sëtu ado boo xamante ni kër jaw teranga la judd macha allah kii judd di bela ok waaw nekk xar boo xamante ni aussi am na jeexital si càmm gi macha allah am na jeexital suñu élevage macha allah xam naa après ñu yaatal si quoi moom ku euh, fu mu jugee moom seega moo nu ko jox ok seega dafa nekkoon fii jël nekkoon fii liggéey moo fi indi woon quoi mhm. waxaam la dëkk moo nu joxoon tey brebis bi joxoon nañu aussi beneen brebis boo xamante ni coow sax moo ko jëlee suñu loxo benn xar bu extraordinaire bu ñuy wax ndeel waaw ci mi ñaar porté kii actuellement nii mi ngi ci mi ci quatrième porté macha allah waaw ñu ngi ci quatrième porté bu am taxawaay la nag waaw waaw ah. waaw waaw xëy na dafa xaw am ay tox tolof tolof sax waaw waaw mais mais boo ko xoolee xam ni femelle la waaw dëgg la dëgg la muy dégagé mm-hmm. macha allah mm-hmm. ak cër yi mm-hmm. xam ni femelle la mu ngi nekk nga ne mu ngi ñaari porté mi mi ngi ci quatrième porté ki mu wàcce koo jur euh, ki mu wàccee nii euh, quinze moo ko jur waaw doomu la uh-huh. macha allah xam naa quinze après di leen si ñëw quoi ok léegi ak ki mu dendal aussi ki setu setu wóos la ki mom comme cham comme limay wax rek parfois aussi nga dajante ak yenn xar yo am tane occasion lay don ki ben benn moko jaan quoi setu setu siberu la uh-huh. mu nek xar bo am tane aussi dañu basé wu ci melokanam aussi papam euh xamna ko muy wóos uh-huh. mais côté tay jeexital xeyna ci yenen côté pédigré waji ko jox moko gëna maîtriser mais papam la xam muy wóos wóos nekkon doomu xuddos quoi ok waaw côté ligne siberu bi quoi machallah di wax ni aussi ba légui ni Bella mi aussi. du uh-huh. kii rek la fi jur. Bella moo jur kii aussi. moo jur añel bi moo jur añel bi. ok mooy taamu wala. non non euh, ñële la taawlo kële kee mooy taawam. kooku muy naan sax dama juum trois portées la def. ah trois portées kee kii la def kii la taawlo. kii kii seex la. ana bi. kii seex la seex seex bi ñu ngi jëlee fenn quoi. Ah, ok waaw seex taw bee nekk nii waaw. kii la si teg waaw. kii mi ngi ko juróog verdict boo seetloo Euh, foire Tëngéej deux mille vingt deux ah. am na benn euh, jeune mâle bu ma fi indi woon mu classé woon deuxième ah. ñu koy wax verdict uh-huh. euh, moo jur kii nii waaw verdict moomu nekk doomu doomu naar gadda naar gadda nekk doomu roi Bachir uh-huh. mhm. macha allah mhm. mu nekk femelle boo xam ne tey rafet na mhm. te defe naa ni li ngeen ko doon doyee macha allah ba léegi war na mën a wàcc champion dëgg la ni mu mel nii man gëm naa ni euh, tey ah. euh, bu ci 15 pro max. Mhm. yàlla def beneen maal ñëw croisé ko. Ah. Mhm. parce que càmm la. femelle koy teg ci benn maal. Eh. bu jugee fa nga tegaat ko ci mhm. baax na. Euh, moo tudd Bella si par rapport ak li nga wax noonu sax. waaw dana tijji tey bunt. da nga ni bu ko beneen woon. waaw yàlla dafa dogal ni comme li may wax rek. xam nga élevage moom. ak tey benn maal boo xam te ni moo war a ay doomu quinze waaw waaw parce que tey 15. waaw dugal nañ ko. waaw xam nañ li mu mën xam nañ li mu tële ah. li mu tële tey dañu ah. benn maal benn doomu Amza ok ku xam Amza moo jur madame Baaw ok benn rakku tey madame Baaw bu góor magu madame Baaw bu góor waaw dañu dugaloon pour mu tëb xar yi tëbaale doomu quinze yi oh, anamu kooku dafa daf fi ñëw ñetti xar la fi jot a croisé daanu ku xam Amza xam ni moo gañ euh, doom moo gañoon foire Louga waaw ok Amza nekk doomu aw mboj ku xam aw mboj xam ni moo moo nekkoon xar bu gë gën a cher ci histoire élevage moom la ci Pa Mansour moo dix neuf millions. oh Amza moomu tey moo. jur benn maa fi jàpp nañ. waaw jot nañu courage. moom laa oh. ko doon laaj sànq jot na courage. bi bi bi ci la bokk. non kii kii jot jot oh, jot kee feregul quoi. Uh-huh, uh-huh. oh mais baax na. wóor macha allah ñu ngi ñëw. macha allah mais nag eh, yàlla baax na leneen dina ñëw. Uh-huh. kooku moom bo bo eh, eh, ñaata moo la moon xar waaw kooku jotoon na jotoon na adulte ah. ah. duggoon na ci ay deux ans. ok dafa am ku ko baaw joxoon. ñu ñu demoon topp jiwaat ko ci kooku. jëli ko pour jéem am lu mu ci dabu quoi. ok parce que amoon nañu yaqin ni tey bu croiser tey brebis dina am lu mu ñu yokk quoi. waaw waaw parce que parce que ku xam tey am sa. Uh-huh. xam ni critère majeur de si fort. waaw ndax tey il faut ma taxaw tey ci foofu. waaw waxal tey saint bi. Uh-huh. référence tey ci brebis. Uh-huh. doomu am sa la muy madame Baaw. ok madame Baawa Kassé mooy unique espoir bu def autor au garrot cent def LCS cent cinquante espoir ndéwénoo la fi defoon cent 106. waaw def LC 135. waaw madame Bawa ñëw def cent 106. def LC 150. fu ko defee woon. Euh, foiru Tëngéej. foiru Tëngéej foiru Tëngéej boobu verdict di gagné papaay kii. ok boobu aussi madame Bawa moo gagné si. ci verdict mooy kan moom verdict doomu nar Gadda la. ok Naar Gadda nekk doomu Roi si ok mhm. macha allah. Mhm. en tout cas euh, madame Bawa moom euh, tracé na tracé na histoire kii ci élevage quoi. Mhm. macha allah. ak ko ko may joxaat kooku la. waaw kii kii aussi. Hmm. si Souleymane Jules Diop la jóge woon. ok euh, mën naa ni pur produit Souleymane la ko xam Souleymane. Ah, ah. borom Saint-Louis Bergerie. Hmm. kii doomu Baysal la. Baysal nekk euh, doomu doomu doomu doomu Maxtaar. Hmm. Maxtaar nekk doomu Yaxya Yaxya nekk doomu Maxtum. nekk eh. suuf boo xamante ne tey. Mhm. mën naa ni eh, démarrage bi mi ngi jugee ci ci ci ci grand Charles. ok ku xam Charles xam ni mooy borom bel de bel. xaaral Charles Gaye ki mhm. borom Joal waaw waaw côté moom mi aussi. yaay ji doomu solution la. solution doomu doomu doomu doomu Saloum la. macha allah doomu saalum la. ok mhm, moo am moom. moom moom war na def ni ay ay quatre cinq ah. porté la. ok waay waay waay macha allah. mu nekk lu daaw euh, indi ma kees wala nga indi borom seex Euh, mais champion. Mm-hmm. li nga li nga li nga li nga li nga li nga teg nii maa ngi gis nii yaa ngi yaa ngi jàppale saa waaye te yaa ngi càmm lu leer ah. waaw xam nga moom moom. mais loolu loolu euh, tey bii ci càmm boobu foofu jëlee ak euh, nu kañ commencé dund càmm ji. waaw man càmm gi mën naa ne yàgg naa si yàgguma si. Ah. soo déggee man la yàgg naa si yàgguma si. waaw ah. mooy que ni topp nañ si lu yàgg di daw. waaw te ah. amuñu njëgu xar. dëgg la dafa bëri na ci nag. waaw sunu borom. doxna ben instant aussi ñu ñu ñu ñu ne ci dawal bi. waaw yor ay xar comme gaay ah. pa di di cham récemment faaru ndar bi rek man yegna podium ah. ah waaw yéeg podium. res bi passé. waaw yaa waaw yegna naa podium yéeg kan? podium ci ci ci ci agnali moy kan Mirabel. waaw Mirabel Mirabel moy kan. Euh, Mirabel. Uh-huh. ak 15 mi ñoo bokk papa. ok doomu doomu doomu ki la. anam mom doomu nuru la mi ngi sama kër. kon na fa jaar xool ko. inshallah euh, kon kon kon da ngay <laughs> mais non le ki kan la. Euh, wa ki Ki doomu len la. Mhm. Euh, yaay ji doomu 77 la. Mhm. Dumaleen nek doomu euh, batonier mhm. yaayu euh, len nek doomu Biram de Ki papam keur Moussa Ad la juddo waye aussi yaayam Pa Mansour boj moko juddul. ok bel Bële doomu 77 be keur ah. Pa Mansour boj la jugge ok Pa Mansour moko jox ben éleveur bu ni wax fi Bas kooku mom momone verdict ni ok Bas mom moko jox Bamba. euh xari ñewon ak ay cheikh Euh, kii am na seex seex ma ngi si biir quoi. ok mi ngi def récemment benn porte la jotoon def nii quoi. ok mhm. macha allah. Euh, indi ma quinze wala kan en tout cas na na quinze ñëw bam liggéey baa ngi liggéey baa ngi jaar yoon de. Ah. incha allah mën nañ ci xaar dara. bergerie mhm. k 2 mhm. mu nekk ah. bu naan sax sa bergerie nu mu tudd. Euh, bergerie kër gaa ngi noonu. parce que man waaw quinze mois nga wax. ma fekk pour foire res euh, mu nekkoon journal journal ah. bu rafet la prometteur ma tey ci fale ma dox siwaat ko mais mi ngi nii. 15 mhm. pro tey lu ma mën a wax ci moom. waaw 15 mi euh, xar mhm. boo xamante ni tey. Mhm. dana am ci moom yaakaar. soo déggee nag yaakaar xam nga éleveurs yi parfois dañu amul dégg-dégg bu baax. boo nee yaakaar yaakaar du lépp. waaw cest à am na lu mu am moom am na lu mu ñàkk. mais li nu am li ci baax la nu soxla. te xam nañ ko. waaw mu nekk un mâle boo xam te nekkul xar boo xam te dafa war a nekk fi éternellement. mais dafa am benn. am def dafa am benn mission bu mu fi war a accomplir. waaw jot na nag croiser xar mais ay góor ñoo si judd. ok mu nekk xar boo xamante ni doomu nuuru la. nuuru nekk doomu doomu vaar vaar nekk doomu préfet. waaye aussi yaayu nur uh-huh. dañu jël ñaari doomu roi Bachir naar gàdda man dama naan mooy maire doomu roi basir bu góor naar mu ngi nekkoon si procureur Demba Sow naar la ñu jël tekk si beneen sëram ñaari doomu roi Bachir croiser leen benn bërëb bi judd si ñu jël bërëb boobu tekk ci doomu préfet nuuru judd ñu jël nuuru tekk ci benn doomu xaddaafi macha allah ku xam xaddaafi xam ni fii bi ñuy foire en deux mille dix huit xaddaafi moo jëloon euh, deuxième ci ci ci Grand Mali kon moom tey boo xoolee tey par exemple ay xaru pëjom ñoo ko séq ku xam préfet xam ni foiru Thiès deux mille dix mhm. moo jëloon première ci Grand Mali uh-huh. ku xam aussi xaddaafi xam uh-huh. ni ndaanaan la woon fii mais tey comme lu may wax càmm ndar parfois nga tudd fi xar sax mais gars yi duñ ko xam lu waaw côté gis nga li ñu defal ni c'est très important. non dëgg gis nga càmm gi dafa ànd ak visibilité. non xam nga càmm mhm, mhm. dafa bëri lu làq te gars yi xamuñu. dëgg la te. Mhm. li olof naan. Euh, puso bu réer mag mën na koo for xale mun na ko for day dëgg. dëgg la am na boo yoo xam ne yi càmm ji. li ñu xam ci càmm ma ngi xamuñu dëgg la. pour parce que mhm. xale ni ñu ni ñu bëggee woon xar topp ko. Mhm. am na mag ñoo xam ne xam xame woon ko noonu jàmm. dëgg la moo loo xam ne yéen euh, mhm. jeunes yi. a ñëw gëstu ko ci yéen boole koog li mag ñu yor. la dëgg la pour dire que ni gis nga tey Xaddaafi moom. Uh-huh. jur yaayu kii Xaddaafi doomu Ndakaaru la ak Orix. ok gis nga Ndakaaru. Abu Kan moo ko jaayoon fii ñetti éleveur yu demoon volontaire yu dem tey kër Abu dem jënd ci fa benn bërëb bi bu ñuy wax Ndakaaru. Ndakaaru Euh, ligne côté euh, séeréer la mhm. ak Bachir mhm. ndakaaru moom ku ko xam-xam ne am na jeexital fii si càmm gi mhm. parce que euh, kii ak maalu Issa Saka bi xàll yoon photo waaw kii ak xàll yoon waaw ñoo bokk yaay xàll ah, yoon bu Issa Saka bu Issa Saka moom kii bokk yaay mi ngi léegi ah, sama benn grand bu nekk kii ñoo ñoo bokk yaay uh-huh. kon loolu day dëggal ke ni tey kii jiw bu baax la non dafa leer waaw non mais à quinze mois boo ko xoolee xam ne jiw bu baax la uh-huh. macha allah Hmm. Euh, mu nekk euh, parce que man ba ma ko fekkee res ah. euh, bi dama ko gis boobu dafa naa mi woon am. Hmm. onze onze mois. waaw waaw ah, mu nekk journal bu rafet. waaw ma ni saa kii moom ah, ah. macha allah. te boobu dafa juge woon ci ay tolof tolof. waaw bokkoon na ci ci six yi mais dafa dafa mujjul. mujjul classé la mais yàlla baax na. Hmm. mu nekk quinze pro nekk maal boo xam ne rafet na trop. waaye tey ak. croisement bi ngeen def nii. peut-être maal boobu ñëw na jot li ngeen bëggoon ci moom amoo leen ko nu mu tuddati woon maal boobu. saxir nekk doomu Amza doomu Amza waaw. Hamza nekk doomu Ramdan euh, ak Awa Mbodj. macha allah. Mhm. te Saxir moom fixation la ñaari doo Hamza euh, la ñu jël tekk ci doomam. waaw mu nekkoon xar boo xam te ni boo gisee ñu defoon ci choix bi mooy que dañu bëggoon Hamza bu pure dur. Mhm. parce que tey par rapport ak bërëb yu ñu yor ak maal bi ñu yor boo xoolee tey mal bi par rapport ak ni ñu ko tëggee. Mhm. algoor dafa saf moom sap. boo xoolee tey côté Hamza bi dañu fort ci mensuration mais boo xoolee côté ossature dañ ko xaw faible. ok looloo taxoon ñu ñeme woon Saxir boobu. ok mais nag. Euh, dañuy jéem a xoolewaat beneen beneen yoon quoi. non yàlla baax na <laughs> parce que yow fi ñu ko teg nii parce que xam nga xam wax au début. Mm-hmm. nga ni saa bu doon day def càmm bis rek da nga ni ñëw jaar autoroute à péage. Mm-hmm. te mën na ko de mën moom laa lay wax nga gis ni dafa am leneen lu ko war. Mm-hmm. mais passion bi. nga jaaree ko ci ay chemin. mais baax na. ñaari ñaari yooyu moo fi am affaire yi. soit da ngay ñëw dem passion. ne man li ma bëgg maa koy liggéey sama bopp dafa am ñoo xam dañuy dañuy dañuy def challenge mhm. defi lay nekk mhm. li ma bëgg mhm. maa koy liggéey sama bopp dëgg la wala damay ut lu pare man liggéey lu leer ñaari choix yooyu moo am comme que nag yéen da ngeen a bëgg croiser ba génne lu doy waar mais ñu leen di xaar parce que man damay ñëwaat incha allah incha allah <laughs> jot na jotoon nañ ko fi sax réussir ah. mais cat moo si dugg waaw waaw waaw noonu lay demee nag nga ko laaj mos nañ fi juddlu fii benn mbote boo xamante ni xar ba jur xar ba xar boobu sax daanu na sànq maa ngi naan la aussi bi ñuy jënd Bella am na beneen brevet bu extraordinaire bu ñu jënd. waaw amul bu fi daawul jaar si suuf pour jéem a jaar si moom pour nangu. dëgg la moom daf ma koy wax. dëgg la benn sëtu raan la woon. Ah. tey brevet boobu noon uh-huh. juróo fi benn mbote bu extraordinaire. macha allah yàlla dogal tey uh, yàlla def si tolof tolof si femelle bi mu daanu doom ji aussi daanu. ñu ngi koy tàntewaat nag eh. incha allah dina baax am nañ yaqin ni dina ñëw quoi kon naa gara mhm. jaajëf champion mhm. en tout cas bëgg naa bis muy ñëw àndal bu ñu jaaraatee fii mhm. Eh? mu nekk affaire bu doy waar non day day gën a baax incha allah début daal dama ko yëkkatiwaat dem ñi nga xam ni dañuy dañuy togg instant bi laay wër na instant bi ñuy togg lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy waaj nii sax te li ñuy waaj euh, dafa am lu ñuy waaj nii li ñuy waaj incha allah waaw bis bu bis bu demee ba sotti si ngay bokk tey ñun dafa am ben dafa am benn xar bu nu bëgg dugal. Ah. xar bi ñuy dugal day am coow day am pédégré bu wóor. Ah. te li ñuy soxla da koy def. incha allah te incha allah entre guillemets lañ ciy def. jeex na à suivre man gëm naa ni lii ma gis. maal mhm. bu fi ñëw. Mhm. te ànd ak loolu ngay wax. Mhm. boole ko li fi ciy def. dara mën na fay gën dëgg la ba baax na. kontaan naa champion yaa champion. waaw mbokk Samagal TV gis ngeen ñu ngi fii ci Ndar ah bergerie de K2S ah champion. Euh, léegi looy. koy tëjee ñu jox saa waay mu tëj parce que waxtaan bi neex na. Euh, gis mhm. nañ gi fi ko teg. Mhm. aja waaw di la jaajëfal rek wax dëgg yàlla ci comme ni mu ko waxee sànq ni mu tijjee si déplacement bi ak dérangement bi. Mhm. parce que yombulan ah, diggante Dakar ak Saint-Louis. du caaxaan quoi. nit ñëw déplacé wu rien que pour euh, yaatal seen élevage. kooku duñ def lu dul jaajëfal ko te yéen aussi da ngeen am benn part bu rëy boo leen di boo leen di marqué si càmm gi. comme li may wax rek naan parfois di ngeen di ngeen am na ndaanaan yu bëri yéen a leen di feeñal. tey ni dina toog ci këram amul sax temps tey ngeen def tey ah. vidéo mu gis say xaru ndaanaan dem recruter ko yóbbu ko ci benn dëkk xar boobu ñëw ci dëkk boobu yokk seen élevage. Mm. kon mën naa ne xar boobu bu yokkee élevage dëkk boobu yéen mënoo leen ci génn. dëgg la beneen bi aussi euh, moom aussi di ko jaajëfal di ko gën a ñaax rek comme li may wax rek élevage moom yombul quoi. dëgg la. Mhm. non dëgg la moom champion la moom borom baax waaw waaw vraiment léegi ñuy communiquer ci ci whatsapp bi di waxtaan yàlla a na di nga ñaanal suñu borom defal nga taw fee xama mhm. waaw mi ngi noonu daal jaajëf jox ko kàddu gi jaajëf waaw léegi nag euh, ni xaarima ah? waaw xaarima ni fooy tëjee fu may tëjee mooy avant dara comme li sa waay di wax rek mhm. dañ leen di sant bu baax a baax mhm. yéen waa Samagal TV Euh, yow si jiital yow Cissé. Mhm. vraiment ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax. di mhm. kontaan tamit ci li nga def nii parce que li nga def nii du man kese nga ko defal mais da nga ko defal ahlu élevage nga ko defal mhm. kon donc ñu lay sant bu baax a baax. di sant aussi euh, sama waay sama doom day muy eh. champion Thiam. nekk nit koo xamante ne mën naa wax ni gannaaw yàlla sama élevage fu mu toll moom la quoi parce que dafa nekk nit koo xamante ne ku am vision la. nit koo xamante ne ci vision la toll daal ma am ah. gis-gis bu sore sore sori mhm. foofu la toll kon donc ñu koy sante bu baax a baax ak ci disponibilité am aussi parce que euh, mën naa ko woo waaye moom lépp li muy def deug la élevage la ko jiital maanaam ci bëgg élevage boo boko déggee ni muy waxee rek xamni ni passion lay waxee nekk nit koo xamante uh-huh. da ciy dox uh-huh. da ciy dox day dox di wéyal bëgg avancement élevage macha donc ñu koy sante bu baax a baax euh, di sante tamit euh, wa Sénégal yëpp mbokku Ndar di len ci jital ak ahlu internet bi nga xamantene ñi ñuy suivre à partir de Samagal TV. jaajëf ñu leen di bu baax a baax di leen wax comme li sawaay di faral di wax rek à suivre daal. incha allah nañ xool rek nañ incha allah dinañ ñëwaat. TV fi liggéey bi toll. jeex na parce que ñun moom euh, il faut que ñu ñu topp genre bergerie yi. parce que dañuy bëgg gis lii dañ ko bëgg gaa. waaw nit ku am ambition bëgg a liggéey dara. Mm, mm, mm. voilà loolu loolu xam solo. incha allah kon kon na numéro bergerie bi ak. Euh, bergerie K2S la. ñu ngi nekk Ndar euh, Ndar Ndiolofène la

PETA 20 PETA 20 bi technique baa nekk. ah maa ngi jàkkaarloo moom nii ah. Hmm, macha allah adresse bi yomb na yomb na xam. Hmm, hmm. jaafaay kon gars champion. kon baax na ñu ngi lay bu baax a baax jërëjëf. jaajëf Cissé.